Euh, enchaîner ak euh, sécurité alimentaire ànd ci ak euh, Yacine ma petite cousine tey ñuy wax ci yenn ci produits chimiques yi nga xamante ni nekk na ci lekk yi ñuy lekk li mu ñuy yàqal moo ëpp lu mu ñuy defaral surtout sel de nitrate bi li muy def ci suñu wér gu yaram baaxul. te ñu dugg supermarché wala dem gis mu viande bi rouge. am solo nga nga ne oh, bon tey la gën a rafet fekk ne yow sel de nitrate nañ ko ba mu saf. di bi ah bi fois débat bi nag am na élément bi am na lu ñu ciy wax c'est quelqu'un qui a assisté au séminaire du du de, de, du professeur Celestino mm. ndekete yu ci ëpp xam nga foie danaan cher foie du ñëpp ñoo ko mën a jënd mm. d'habitude parce que njariñ yi mu am la ferñeent yi nekk ci foie la mm. euh, te léegi li ëpp ci foie dañ koy synthétiser dina ko jaay deret bu ñu jël la synthétiser ko avec hydroxyde de sodium bi ba mu nekk lu coagulé ah, ñu di la ko jaay mille francs di la ko jaay 2000 muy def ay conséquences yu désastreuses ci yaram dëgg bëri bëri. aywa tuufee juróom fukk nag Pape Cheikh. cherul je veux dire quoi. waaw cherul effectivement on a lekk na ma fii ab palaatu palaatu tuufee 800. surtout foie foie moom dafa teel ma ni dégg yàpp woo bëri te duuf. surtout foie foie bi muy baax xam nga foie. <laughs> Euh, ni muy ndawee noonu yàpp pommes de terre yi dañ koo baxal. <laughs> tëmbal ko ci sauce bi. mu saf sauce. ma arom ko. <laughs> te kaani bi ñu dëbb bi laay laay lekk. bàyyi naa kaani bu tooy bi kaani bi ñuy dëbb. mas nga ko kaani fëlal bi. kuddu ba mu nga xam ne boo ko jël doo ko jëlee kuddu sa même booy lekkee kuddu sax sa loxo gee ci bee kaani gi rek. Eh, def nii xam naa <laughs> baal ma continuer ak les produits chimiques. yi ngay wax waa <laughs> nga euh, <coughs> sont là euh, am ay conséquence am na euh, waxtaan bu ma ci am avec le professeur Celestino Rodriguez. Mm. tout le temps le même plaisir ak fierté di ko présidente parce que mooy quarantième cytologue au au monde premier en Afrique. Mm. mu am waxtaan bu am solo bu ñu sekk si li nga xamante ne mooy alimentaire bi ndaxte Pape Cheikh. 35 mm. pour cent ci li nga xam ne cancer la ndekete si lekk bi ñuy lekk la jóge ñu dem sekk ak moom waxtaan dellu si sur hydroxyde de sodium. bu ñu ko tàngalee ba noppi moo koy jox goût boobu noonu mu génn sa forme de baguette. Ah stérilisé ko ray ko ba lépp doon microbe jóge ci. boo ko dee lekk nga yaakaar ne foie ngay lekk alors deret ju way ju rayoon ba pare moom lañ ko coagulé jox la ko nga di ko lekk. ñun fii Sénégal deret la lekk. moom la jël di ko coagulé di ko jaay su forme de baguette. xam nga tey bu demee ba viande ñu mën ko jaayee deux mille cinq cent yéeme na heure bu viande dee jar 2500 ci dëkk bi foie ma ngay jar 4000 jàpp 5000 francs ndax tuuti gi mu tuuti ak njariñ li mu bari. dëgg la ñu di jaay te ñun pare ci. ndax lan que tey gis nga sur le plan industrie alimentaire. Hmm. su borom dimbali nañu foofu ci ba. boo bëgg ci wàllu lekk bu ne. Hmm. mën nañ la produit bi d'une façon boo xam ne boo ko lekk da nga yaakaar ne moom ngay lekk. fekk dañ ko synthétiser de façon boo xam ne goût bi muy cafka gi dana dana ci nekk waaye moom ci boppam la muy saf nekkul moom moo ci nekk. xam nga loolu jafe-jafe la. bien sûr ñu di ko dund ci suñu biir ñun tey jii. Hmm. noonu ma ko waxee ci foie bu la neexee mën naa ko jël ci yeneen am na ay lekk ci ci lekkukaay gi par exemple vous avez des aliments ultra transformés donc euh, ces aliments ultra transformés que vous trouvez dans les grandes surfaces am c'est un risque de de de maladie chronique de cancer donc ce sont les colorants donc ce sont les sels nitrates. amené le glutamate, hein, les exauceurs de goût. Hein. C'est ce que je dis chez la femme, moïsine wudu shaitani. Vous adorez manger bien, euh, saf et consort, mais tous ces saf-safal, ce sont des risques de cancer. te so leen di jëlee soo leen di naanee seen soda yi euh, seen soda yi et cetera toujours regarder les étiquettes. Si vous avez par exemple les E330, 340, E414, su mu amee plus de deux ou trois E ci benn boisson attention kooku ce sont aussi des risques de cancer. te les E là c'est partagé dans les colorants hein, dans les antioxydants tout ça il faudrait faire attention pour bien la viande rouge aussi plus mu rouge mu nekk ci benn paquet. plus puisqu'il y a des E251, donc c'est du sel nitraté qui peut donner aussi dans la charcuterie des cancers. Et c'est cancérigène aussi, ça peut aussi être dans les colorants des bonbons, bonbons halei, mouille jaune, mouille rouge par exemple, mun na joxe ay cancer. voilà professeur Célestino wax na lu am solo euh, saf safa safa yu bëri yi euh, quand il y a trop de produits chimiques euh, dafay yàq. lu bëri ci wàllu wér gu yaram. wax naa wax naa fois bi sànq. mais bàyyi sa mayonnaise bu njëkk ba nan lañ ko daan def. daan bati daan bati léegi mayonnaise bi nu muy def soo ko bàyyee ci boutique ba wala kër ga wala nga def ko si suufu taabal bi ñetti weer fekk daaj nga ko utiliser ko du yàqu. du yàqu dara mm. parce en fait du ay nen la ñu jël. benn produit bu tudd lécithine la nekk si nen ñu jël ay conservateur def ko ci mm-hmm. Sénégal da ngay gis publicité bu ñu def ne une boisson au goût d'orange parce que c'est pas de la boisson ah, merci <laughs> voilà dañ la koy wax mais ki ñuy waxal est-ce que kooku sensibiliser nañ ko au goût d'orange boobu lu graaw la parce que moo ngi koy wax si interview bi soo jëlee bouteille yu boisson bi derrière y a des e. heure rek lañ koy wax mais très souvent ay arôme la wala conservateur mhm. si conservateur yooyu dafa am bu ñuy wax E 251 moom la industrie yu bëri di utiliser xam nga koo gi parfois di nga jël sachet boo xam ne soo ko jëlee def ko si ndox mhm. def ci un litre day saf suuf exactement ah yaa ngi tudd tur de man ne tudduma tur <laughs> Baïcha yaa tudd tur yàgg <laughs> teewal ban tudd bu benn arrêt. dama ne léegi E251 euh, yi ngay wax. waaw E251 boobu Pape Cheikh. aju na moto. naa yëpp demal. soo paree rek wax ba. demal demal demal demal. bu tooy de bu léegi daal yooyu. Euh, en fait E251 euh, euh, e benn élément la boo xam ne tey dama lay wax lu tuuti. page lii dooguma la dal na ma def émission bu mag am sponsor sponsor ba fay xaalis bu bëri invité ba ñëw di xas sponsor yi sama sponsor boobu. léegi Pape noo def keroog. Ah. ah lu waa ji wax rek ma contredire ko mais mais il est très intéressant parce que yi mu tudd amatul je pense sur le marché. amatul t'inquiète pas du ma tooñ. bien du ma tooñ du ma tooñ <laughs> donc en fait ce que je voulais dire c'est que euh. e nga xam ne moo nekk ci majeure partie des boissons. benn élément bu dangereux la parce que lu tax tey soo defee sa si sa sa sa siwo jus de dinjeer wala bisaab xam nga di nga jënd un kilo sucre. Mhm. alors que loolu ñoom suñ ci jëndee un kilo e litres mën nañ ko ko suuf. suukare seetal loolu. c'est-à-dire yow tey pour nga suukar jus de bissap il faut peut-être un kilo. ñoom un kilo e deux ma seet ko ci jus yi xale yi di naan. donc euh, et le professeur il dit cent cinquante te suukar boobu mu safe tey il faut pas kon s'étonne des cancers yu bëri yi. parce que am na ku doon wax suukar bi ngeen di lekk baaxul mais ban suukar la en réalité. Mm-hmm. suukar bi nga xam ne mooy. e deux cent bii nii. Mm-hmm. nekk si nga xam ne moo nekk si produit yi. ci mm-hmm. chips yi ci bonbon yi. e deux cent cinquante et un lañ koy wax am na étude bu ñu def ca Danemark lan la ñu wax ci E251 bi ñu defee ay étude ak analyse dañoo seetlu ne ñi koy consommer ngay jigéen mhm. très souvent soo wanee lor da ngay gaaw a da ngay da ngay euh, accoucher pré euh, kii. prématurément prématurément. E251 bi ñu defee ay test si ay xale dañoo rendre compte xale yi léegi dañoo gaaw a précoce. Mhm. a nga Bab Cheikh Sànq moo ngi naan da ngay taseeg ay sa sa morom yaay ci télé yooyu en fait E251 boobu tey dañoo gis effet yi muy def de développement rapide si xale yi. Mhm. bi ci des sa taux d'œstrogène da koy yokk ba nga xam ne problème cardiovasculaire da koy indi donc ça c'était une étude bu ñu def foofu. Mhm. tey soo jëlee benn produit mu am 3 e, loo war a éviter la. pourquoi parce que yi ci nekk muy arôme muy leneen amul lenn loo xam te ne yaa ngi koy naan sànq yaa ngi wax ne da nga bëgg soda. Mhm. mais boobu ngay naan amul benn vitamine. tu mhm. prends que des produits chimiques. te produits chimiques yooyu sa yaram xamu ko sa yaram li mu xam mooy li nga lekk mu am oméga 3 wala mu am oméga 5 wala mu am vitamine. donc soo dugalee loolu sa yaram sa yaram xàmmeewu ko day dof. Mhm. su dofee mooy tax cellules yi dof di di multiplier wu de façon très bizarre ba indi li nga xam ne mooy cancer yaram nag day lutter dina lute di ko raxas di ko raxas mais dem ba benn moment day sonn fois day sonn day sonn alors sa yaram su sonnee mooy indi loolu alors tey bi ci des mooy pesticides yi parce que on a l'habitude jënd li nga xam ne mooy ay fruits de mhm. temps en temps mhm. dañuy wax ñu koy xooj parce que pesticide aussi c'est cancérigène fruits mhm. soo ko jëndee xooj ko ba bër Mm-hmm. soo ko xoojee mu fanaa soo yeewoo pesticide bi yëpp dina fekk mu wàcc ci li nga xamante ne mooy euh, ndox bi donc dafa pesticide mooy produit yu ñuy def ci mbay mi ci mbay mi mais loolu est-ce que ça concerne juste aliments yi nga fruits yi nga xam ne comme pomme la euh, nga xam ne da ngay lekkaale pot bi wala. ba ci gis nga clémentine xam nga da nga koy xool mm-hmm. mais dañoo conseillé pour nga raxas ko

mais loolu sax këriñ la. neefere fas boobu noonu mën nañu ci defar këriñ gi. bio xam ngeen ne xam ngeen ndeefa ndéef du dellu ci neefere lu muy wax nii ah parfois da ngay jënd fruit ba koy lekk mel ni yow pétrole ngay lekk. Ah, mais parce que c'est les produits chimiques. qui sont qui sont li ma gën a tiital c'est que en fait on ne voit pas les conséquences c'est-à-dire moi ça fait deux ans je t'avais dit euh, mm. un un un ci euh, tout ce qu'ils font dans les trucs des des douanes daf ma ci interpellé directement mm. mu ne ma Yacine ñun li ñuy téye ci produits alimentaires pour sénégalais bañ cee jot di ko la kenn xamul nu mu teewul am na luy rëcc. waaw il faut que vous sensibiliser parce que nit ñi xaw ma. man xaw ma su ma duggee fenn wala ma am. xew pour man boisson yi da ngay gis boisson boo xam ne 100 francs lay jar. alors ma may la beneen rek. kanet mhm. kanet boo jël euh, pour mun a pas citer de nom. Mhm. xam nga ñaata morceau suukar la. nga naan benn cassette canette 16 morceaux suukar. Mm. xam nga mooy lan mooy li ma wax léegi c'est le du suukar. 16 morceaux de sucre ci benn canette. non du suukar de. non je veux dire caro quoi. bi de sucre mooy mooy le E250. voilà donc euh, hmm. c'est ce qu'on met dans une fois mus naa def expérience bi ñu am benn boisson boo xamante ne orange la mais dama ko liir ba si ba mu jeex amul fruit orange bi amu ci. Hmm. amul fruit essence la colorant la colorant sucre. Euh, goût man bi xonkal lam bi na ma lool. mais li ma jaaxal moi c'est ce que je ah, demande. à dire naan loo xamante ne leer na yow. li ngeen naan neexut mais. c'est-à-dire yow kese la. nga jënd di ko naan tous les jours wala di ko jox sa doom yow da lay leer na lii am na lu nekk si biir. c'est-à-dire mieux vaut jox ko sa doom mu jàngi. Mm-hmm. parce que regardez bien dans les surfaces tu as ce qu'on appelle les produits naturels mhm. am na benn marque bu dans les surfaces mhm. mais boobu dañ lay carrément c'est naturel mais soo ko mhm. ubbee fan au dollar bu ko yàq fruit bu mu mënti bonne fois pour tout alors tey suñu demee ba ay xale am ans ans 30 ans di AVC. di am ay problèmes cardiovasculaires. 35 pour cent du cancer foofu la jógee. c'est-à-dire il faut que benn moment problème de santé publique la qu'on le veuille ou non. Euh, la santé dafa sonn. Euh, les hôpitaux sont remplis lenn li ko waral mooy ñun li ñuy lekk c'est-à-dire aujourd'hui ceebu jën kenn lekkatu ko je suis désolée ceebu jën bi suñu yaay yi daan togg. Mm. tamaate géej ak daxaar ñoom seen amatul. bu tamaate loxoti bi baaxul. non je parle pas du tamaate loxoti man damay wax dama naan <laughs> ba yàlla na taw ma bëgg tamaate ma parce que euh, tomate yi te da ngay gis boo ci dajji tey euh, par exemple on te dit il serait préférable ngay jënd bi nga xam ne pot bi plastique la que bi nga xamante ne pot bi weñ la par exemple mm. parce que tomate yi plus ngay dem plus muy gën a ñuul def leen remarque bi boo daajee sa tomate def ko sa frigo heure boo xëyee war ko togg tomate bi day gën a ñuul dëwlin bi boo yeboo rek yow pour nga bañ am xëj na sa ceeb bañ a xëm wala quelque chose comme sa bu dëwlin bi tàngee tuuti rek mën nga rossi bañ a xaar mu sens ndax ni tomate yi nga xamante ni dafay gën ñuul donc limite lépp li ñuy lekk moom c'est-à-dire aujourd'hui ñëpp feebar que ce soit les pères de famille les mères de famille problème de santé la alors tey l'Afrique est devenue seen seen marché parce que là-bas ah. ils sont assez avertis je vous dis. Ah, association des consommateurs yi là-bas ils bossent les gens tey soo duggee. et y a des normes à respecter pour les produits yi ngeen di lekk balaa muy dugg si commerce mais loolu su duggee ci surface désormais boisson su amee trois nangootu ko jënd mais su industrie bi koy defar. dina dina revenir dina mais léegi sax ay de date d'expiration bi de péremption genre une semaine avant ou euh, une semaine après ou deux semaines après. c'est xool li ñuy lekk li ñuy utiliser foofu lañ. nañu xool li ñuy lekk 10h57 ci lekk bi euh, nañ ko xoolaat rek yàlla baax na na na ku ne daal li ngay dugal sa biir nga xool ko nga xam ko maintenant nag. ku ne yaay sa docteur bopp voilà ku nekk yaay sa docteur bopp c'est très important ku nekk yaay sa bopp Yacine alerté na ñun ñu ngi alerté donc euh, prenez soin de vous prendre soin de soi nag mooy li ngay lekk sax nga nga nga nga xool ko parce que fii. waratul. fi waratul cuisine yii moo tax du ñu lekkati lu baax. fi waratul jigéen ñi ñëpp a mel ni man. ñëpp a tayal da ngay dagg soble ah, marché dagg pomme de terre marché dagg laaj marché. wal pomme wal ki marché fe limite bu ñu gisee ginaar bu ñu muusal ba pare jënd ko. boo gisee ndawal je dire on fait plus rien. donc après di lekk lu la neexul. jaay ñuluk ah, di nga lekk lu la neexul. ah vous êtes des femmes d'affaires amu leen jot c'est normal merci ma petite Yacine kontaan nañu euh, defe naa 10h58 euh, mooy jot euh, ñu ngi wàcc làlli bàyyi leen ak Amina Poté on vous donne un peu le programme de de tout à l'heure bu ñu paree.